ah kooku sama mbokk la voilà nee na nee na <laughs> nee na ma ndaw mbokk Jelman eh, ñu ngi jaajëfal ki nga xam ne mooy Binet euh, Sow moom moom message am tamit euh, bëri na lool ku la saf wala ku la bëgg la. Euh, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax li jaajëfal Oumou Diop moom tamit ci ñu ñuy safoo la bokk mbégte lay doon say su nekk ngeen di ñu bàyyi xel fii ci Sen Teranga TV ñu ngi jaajëfal Badara Mar Modou Kane ak ki nga xamante ne bi rek mooy Binet ba. léegi ba Badara euh, voilà ak ay dara ñu ngi koy daal di jaajëfal moom tamit euh, ci commentaire yi Mamadou Manga mais dafa am benn question boo xamante ne bii depuis ba ñu commencé internet bi mu ngi koy mu ngi koy posé di ko posé euh, question yu bëri ak relance yi ni mu doon demee ak waxtaan bi du ñu bëgg sax ngay dina dagg moo tax mënuñu woon ci ñëw mais juste que pour nga tontu question boobu muy li nga xamante ne mooy souveraineté monétaire bi ndax dafa ko intéressé trop nee na bëgg na ci am lu ko leex nañ ndax c'est possible ñu mën a am li nga xam mooy monnaie bopp monnaie en commun. boo xamante ni dañ ko bokk. en plus euh, relation euh, ñu bokk CEDEAO wala SAES bi ban moo ci meilleur choix pour li nga xam ne mooy le Sénégal. waaw euh, le meilleur choix pour le Sénégal mooy le choix bi nga xam ne. mooy correspondre ak l' intérêt du Sénégal ak le bénéfice du Sénégal. lii mooy le meilleur choix pour le Sénégal. ndax souveraineté monétaire dañ ko war a am un état souverain dafa war a am souveraineté ci léppam. ni ñu amee souveraineté euh, si wàllu défense Sénégal am armée bu xam bañ a xaar kenn pour mu protéger ko ni ñu amee souveraineté suñu wàllu suñu wàllu diplomatie ne ñu ñooy doxal suñu bopp lépp ci àdduna bi noonu la ñu war a amee itam souveraineté suñu wàllu économie ak suñu wàllu monnaie. vraiment loolu moom euh, ñun jàpp nañ ni du sax débat c'est parce que ñoo am ay économistes yu cuune yu nekk ci dëkk bi di xuuxal nit yi ba gars yi commencé tiit di ragal mais vraiment loolu débat mm. débat bi kay mooy. naka lañ koy amee yan principe lay doxee yan caractéristique lañ koy defee suñ koy defee euh, quel est le niveau de risque quel est niveau d' avantage ñu toog waxtaan ci avantage coût lii moo doon nekk débat bi en réalité waaye ndax mën na nekk lu mënul nekk moom vraiment loolu ñooñu train bi romb na leen bu yàgg mën na nekk te dafa war a nekk te incha allah dina nekk lii mooy lii mooy wax ji léegi nag naka lay nekkee quelle la meilleure formule loolu on y a pensé euh, bind nañ ci tënk nañ ci dara Euh, tënk nañu mbir yee xam ne foog ñu def ko gaawal ko baral ko ak yee xam ne vraiment soxlul baral mën nañ jël suñu temps pour mën a soog a yegg ci niveau boobu waaye même bu ñuy eggee ci souveraineté boobu ñun bàyyiwuñu xe ba dàquñu ni dañoo war a kon ne jëflanteeg yeneen pays africains yi dañu jëflanteeg ñoom euh, vous n'êtes pas obligé bokk monnaie pour nekk en en commerce peut-être en coopération. waaw comme ni ñu koy defee Gambie. comme ni ñu koy defee Mauritanie ak keneen c'est pas obligatoire Gambie suñu partenaire commercial la bokk. pourtant bokkuñu monnaie. waaw bokkuñu monnaie. donc euh, mais il faut ñu am ay cadres yu leer yoo xam ne ay parité claire ñoo xam ne ay négociation la entre dëkk yëpp pour ñu xam ni ñuy doxalee loolu waaye souveraineté monétaire moom wax dëgg yàlla c'est un must dañ ko war a am ndax euh, dafa am sax euh, ay xalaatkat yi nga xam ne dañoo xool ñu wax le triangle des des incompatibilités pour xool yi nga xam ne. vraiment mënoo ko amandoo am même temps ñàkk am souveraineté monétaire boobu ñun dafa jouer sax ci suñu biir si euh, levier politique monétaire yoo xam ne amuñu ko dañ ko ñàkk ndax ñàkk moo ne dafa jouer waale tamit si suñu manque compétitivité ndax on maîtrise pas suñu tour de change dañoo am benn monnaie bi nga xam ne dafay dépassé ah. donc vraiment handicap yi ñàkk am suñu monnaie yu ñu jural suñu wàllu économie ak suñu commerce dañoo sakkan sakkan bi nga xam ne vraiment ñun xool nañ ñu ko war a joyante incha allah rabbi Euh, économie bi benn benn levier la bu ñu mën a régler les problèmes de notre pays euh, et surtout la monnaie. Xaadim euh, Xaadim Ba mooy poser question bi nee na ban politique ngeen di mëne pour si tarixa bi si tarixa yi parce que yàgg nañ leen tuumaal que vous êtes contre les tarixa <laughs> waaw mën gëw ma ni état Sénégal wala sax mëne ay politique pour ou contre des tarixa c'est pas le rôle de l'état Euh, état li ko war mooy. defar réew mi defar économie réew mi euh, sàmm waa réew mi. ak intérêt waa réew mi. permettre waa réew mi ñu dund leen saf sans ñu yàqalante sans ñu yàqal euh, ñeneen lii mooy rôle état état si la war a nekk état warul nekk di xeex tarixa wala di charmer ay tarixa état yi fi nekkoon nag dañu doon charmer ay tarixa ndax ñoo jàppee sëriñ yooyu ñu yor benn bétail électoral ñu jàpp ne suñu charmer sëriñ yooyu. mën nañu am seen bétail boobu ñu voté leen lii moo fi yàgg nekk ba tax képp ku ñëw warul def loolu te jàpp da ngay xeexee tarixa waaye nag man li ma si li ma si àndi euh, comme précision mooy man ku ma xool euh, ku xool sama solil sax nga xam ne am naa tarixa man dama bokk tarixa man tarixa tijaan laa bokk pour ñu ko xamul sama buntu tarixa tijaan mooy tudd Maolana Cheikh Ibrahim Niass mooy sama sëriñ man ma ma jàpp ci moom. ma gëm ko ma gëm ko trop nag. Mhm. waaye dama gëm nag ànd ak xel man bokk ma si taalibe dof yi man du ma dof du ma tamit objet wu kenn man dama jàng sama diine xam ko. Mhm. nit mënumaa maîtriser. te nanguwuma ni kenn ma gën walla yaayam moo gën sama yaay ba ma toog ci ginnaaw nanguwuma ko man dama ànd ak sama xel donc euh, contre ma nag benn tarix au contraire dama gëm ni ñoom Alaaji Malick ak ñoom Cheikh Amadou Bamba gëm naa ne bu ñu ñëwoon si jamono man leen na la gën a àndal ak ñu bëri seen taalibe yi ndax mm-hmm. li ñu nekkoon di ko xeex ñoom di ci sonn mm-hmm. man ci loolu laa nekk di xeex man dama gëm nag ni personnellement le président de la république dafa war a am benn dayo bu rëy bu mu bàyyil kilifa diine yi ndax kilifa diine yi ay piliers lañu de l'ordre social. absolument et surtout de la cohésion sociale. absolument man dama gëm ni on doit les utiliser. Mm-hmm. ci cohésion sociale boobu. ci diplomatie religieuse et culturelle du Sénégal ak surtout en matière de conseil ndax ñu si bëri c'est des patriarches ay mag lañu mm-hmm. et mën nañu jouer rôle lu médiateur mm-hmm. entre l'État sax ak mm-hmm. euh, entreprise yeeg beaucoup de choses yoo xam ne ñoom ay jooyukaay lañu si askan bi euh, lii laa jàpp ni moo nekk rapport même des messages aussi. oui c'est très important man dama jàpp nekk rapport yi nga xam ne. président war na ko am ak kilifa diine yi. leen consulter di leen laaj seen avis di leen ci sàkku si ñoom ñaan. Euh, mais fa la war a yem. man jàpp ma ni nit ki war ngaa mën a sàcc dem ci sëriñ ba pare mucc ma loolu d' accord ma ko. loolu ko fi def tamit vraiment dama koy xeex. ñu lay woo di tamit trafic yi nga xam ko jël parce que da am santu sëriñ. Mhm. ba soo trafiqué kenn la ñeme laal man gëw ma dans un pays gëw ko. santal nu la neex Mbàkke ñas si taal noo ma sant mais citoyen sénégalais nga soo defee lu yoon ñu dafa tegu sa kaw. si yoon point. li laa gëm maanaam dama gëm ni état moom warul am complexe entre qui que ce soit. Mhm. sëriñ yi war a am seen wàll ci dëkk bi ndax dañoo bokk ci dëkk bi am fi wàll nag état war ko bàyyi xel ñu yóbbu ko assemblée mu nekk lu transparent Sénégal yëpp nangu ko d' accord ni gàmm ak màggal lii tarixa yi ñoo ko moom bi su boobaa léegi nag bu dee dañoo xalaat nag ni il faut président bi nekk taalibe benn sëriñ ci sëriñ yi fi xam euh, di topp ci ginnaawam di di bërëngoog di përie mel ni ay ay ginaar yooyu lii dama jàpp ni lii moom dafa sérieux maanaam état weesu na ko. am na président bi xam ne sax musulman. mu uh-huh. le président ah, Senghor bien sûr président Senghor du woon sax musulman. te génnewul kenn dans ce pays. donc man le débat te doon gën a jàppale. nervi man nervi religieux yi nekk si tarixa yi tarixa yi. Uh-huh. ñoo actuellement ñoo excité ndax ñoo xam ne seen marché yi moo nar a yàqu <laughs> mais nerveux yi mu leen di wax na leen nañ dem liggéeyi te bàyyi tappale gi uh-huh. toog muy dox moom jeex na toog muy dox toog muy dox jeex na ñun nag dañoo bëgg sëriñ si <laughs> fonk leen waaye nag euh, taalibe tappalekat yi moom ñun amuñ seen complexe. vraiment si même lancé bi. Ah, pour terminer peut-être. Euh, am na ñuy laaj euh, pour la peine de mort yow lan nga si xalaat xam naa ne Diouf sax pour le président Bassirou Diomaye mais yow sa xalaat. en tant que vraiment. man personnellement je milite et je défends la peine de mort. dama ko gëm. man su yàlla tegoon sama loxo ndombal tànk yi tax may décider. Mhm. wallaay azim def ñaari fan. rawoon rawoon pendamor man pendamor laa gëm dama gëm ni mënoo jël nit rey ko. Mhm. sa ci sa teeyaayu bakkan. ba pare dem kaso di lay jox jagaan bu saf. Mhm. nga koy lekk di train génnaat ko ni ñu agressé dafa yomb. dafa yomb bakkan dafa foor ku ko rey la war a fàtt loolu la yàlla wax. ku la bëgg baal nag c'est son c'est son droit. mais man gëm naa ni ku rey doomu aadama te tey. te tey ko te la war a rey. yàlla moo ñu gën a sage moo ñu gën a xam di baax te yàllaa ko wax. an nafs bin nafsi la yàlla wax wala ayni bil ayni wala bil usni donc man vraiment a saa yàlla ah ak yeneen ak yeneen yoo xam ne xam naa su ma ko waxee yi may gën a mere donc euh, ndax Sénégal dafa mel ni dañoo am jàngoro uh-huh. ci bañ dëgg boo dëgg da ngay gars yi lay euh, lu bëri li xam ne warul am warul fi am dañ ko war a xeex waaw euh, fan yi dañoo gis xaw ma na laa ko mën a woo ndax dañoo gis